عليك lii na ci jotaay boo xam ne maa ngi fa toog lu demee ni lii Assane wax nii téere boo xam ne mooy lixmiraar nee na bañ koy jàng ca daara ja boobu moom ma ngay sàmm ma ngay wëtt ma ngay sàmm tool baayam ca àll ba ndax picc yi bañ ñëwee mu ñëw fekk di ko jàng mu di la sàmmaloo di la wëttuloo ca àll ba mu ne mu ne ko ba mu ko waxee ma walaa ji dégg ko oo ndee mu ñëw mu ne ko dangaa bëgg mu xam mu ne ko waaw mu ne ko demal summeeku ci li nga am lépp mu ne maa wax su jànq dem néegam indi limaam yëpp jóoral ko ma walaa ci kanamam mu ne bàyyi mu ne mu ne ko demal woo Ibra mu ñëw mu jël téere bi ne ko ma ma jàngal la ko wala ma xamal la bàyyi mu ne ma ne ko ma xamal xamal ma mu ne ko sëggal mu sëgg mu teg téere bi ci kawam ne ko demal xam nga loolu ma walaa jabdulaay ko de bàyyi ko nett li maa ngi toog ba nag ñu continuer jotaay bi di dolleeku ci kooku nga xam ne mooy borom leer gi ñu fi dajale tey te incha allah dana dog guddi goo xam ne gu wuuteeg guddi yi fi daan am na ndax danañ ci jëriñu incha allah ci mbooloo yu bari yàlla nag yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne <clears throat> dafa wax ne li gën ci alquran li gën ci jàngkatab alquran mooy alxaalul murtaxil mooy ki nga xam ne waxtu wu wàccee rek dalewaat ca laal te mooy li asan natti li moom la bàyyi doon dund waxtu wu ne di ko jàng di ko tari kooku ku ne xam na ne mënu fee jóg ndax ñim fi xamal ak ñim tëbb ba léegi ñu ngi fi di tëbbalee di xame yàlla di xamle yàlla nam ko daan xamle muy gën a yaatu asana ngi nii ak coonoom ndax ci voyage bu rëy la jógee woo xam ne wër na ci réew yu bari dëkk yu bari ci Europe ak Amérique ngir tasaare lislaam ngir xamle yàlla ba ñibbisi te coono boobu taxul mu gàntalu jotaay bi nga xam ne laaj Abdoulaye sant na ko ko ba nag Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop laay jox Ibrahima Mahmoud Diop nag xam ngeen ko duma leen ko présenté Sénégal yëpp xam nañ ko waaye ci lan la ñuy waxtaanal mooy bàyyi nan la ittewoo woon xam mbiri jullit ñi ci àddina bi ak jokkoo ak ñoom nan la ittewoo woon xam-xam ak xamle nan la ittewoo woon yar ak yare rawatina nag ci xale yi rawatina ci problème social yi nga xam ne mu ngi ci diggante mbooleem mbindeef yi ak jullit ñi ak ñu dul jullit comme yàlla may na ko mu ànd ak baay lu bari loo xam ne yàlla may na ko ko muy ànd ak moom di tukki di fekkee bon oustaz Ibrahima Mahmoud Diop moom lañ bëgg nga dellu sil ñu ci waxtaanu kooku nga xam ne moo doon wër àddina di defar nit ñi di jàng damm-damm yi di dimbale jullit ñi di duggal ñi dul jullit ci lislaam ñu déglu la ci nga waxal ñu ci loo xam ne danañ ci jëriñ wala والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر nag ci ndigal li maa ngi maa ngi sof ci li ma fi fekkoon li ma raw ci wax gi itam wóor na ma ne moog li ma ci fekkee ci benn mën sa lañ jógee di ñaan yàlla lum gàtt-gàtt yàlla def ci barke bàyyi def ci njëriñ ah, Cheikh Hassan Cissé li nga fekkee te fekkewuma ko fekkee naa lu ko dëggal ma itam te sorewul ak liñ may waxloo waaye dafa ko cay sof 1968 Cheikh Mouhamed Lamine fekk nañu fa ca Paris Baye dafa doon faj bëtam bi nee na faju jaamu yàlla la waxoon na sax Cheikh Abdoulaye ba muy dem London ne ko demuma pour wér damay faju ji faju jaamu yàlla la ba ñu demee bañ ne ëllëg la waaja di faj bëtu baay ba baay dafa dem nuy ji ko ca fam nekk moom docteur Forest Cheikh Kébé fekke na ko xaw mi ngi ci mbooloo même ak man ak defe naa nu Ibrahim bi ma nga fa bàyyi ne laajal ma docteur bi ne ko ndax mën na ma opérer suma bët bi te du ma nelawloo comme li nga waxoon fële itam mu ne ko ah euh, opéré bët métti na lool te moom li ci jafe mooy su bët bi yëngatoo rek yàqu mu ne waa ah, laaj ko su ma nelawlooyee ñaata waxtu laay am mu ne ko ah déedéet yow yaa ngi wax ay waxtu ñun léegi ay minutes la ñuy wax li ma lay appliquer ëllëg mooy li mujj ci médecine ci fan nag nelawloo nit ku ñuy opéré soo amee fanweeri minute rek di nga xoolaat mu ne baax na baax na baax na bi ñuy wàcc nag mu téye ma ci loxoom bu tedd ba ne ma baraam xam nga la taxoon ma bañ ba mu yàgg ma nangu ma ne xaw ma ko de waaye sama xol lu jara bañ la ak jara nangu la mu ne waa dama bañoon waxtu julli farata jot fekk maa ngi nelaw nelaw yoo xam ne maa ca d'accord radiyallahu taala ee eh, yaa ayyuhal majzuub nekk julli du caaxaan ee eh, wallah ma ne yaa ayyuhal majzuub ma ne nekk julli du caaxaan bàyyi nee dama bañoon waxtu julli farata jot fekk maa ngi nelaw nelo yoo xam ne maa ca d'accord waaye gannaaw du yàgg baax na ëllëg sa fanweeri minute rek ñu téléphone ñu ne ñu opération bi baax na sëriñ baa ngi xool bam ñibbisee ca kër ga bay julli julli kuy junj bés médecin ba ñëw fa nekko ko bul sëgg de seen sëgg yooyu maanaam bul julli mu ne koy eh, loolu laajuma la ko entre parenthèse sax nekk yàlla lu ko neex mu may jaamam ndax bu dutoon loolu am naa fa loo xam ne ni kon xamu fu ma koy foree mooy diggante boobu yëpp man maa daan jiite maa daan jiite bàyyi di julli ci xam-xam bi ankañ moom firi na gannaaw gi noonu ko yàlla ubbee ba xam-xam bi mel ni ngeen wax ca Conakry 1946 jël na xalimaam bind ne wal abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu al idnu biduni wahmi mu ne moom mi nekk jaam bi jaam bu am article jaam bi jaamu yàlla bi bon kii ubudiyatoom ak ibadatoom ak ubudatoom dëggu nee na doon na dox di dox ba mujj dajeeg jëmmi xam-xam ja te bam ko jotee itam am na ca ndigal loo xam ne du lu muy negg negg du lu muy werante janoo naag jëmmi xam-xam ja am na ndigal ci joxe ko moo tax mu mel ni mu mel euh, bàyyi nag radiallahu anhu bokk na ci li ñu war a fàttaliku ci digganteem ak xam xamle moo di yàlla dafa bokk ci yim ko njagleel euh, wilaaya foog mu ànd ak xam yàlla waaye géeju ci moo fànn yi defuñ ko sart yàlla dana jàpp wali xamal ko xam ko la mu war a xam waaye nekk nag marja ci funun yépp ñaari ci fardul jaamiu lay daje wala ci waaris muhammad yi wala waliyan mursidan yàlla nag may ko ko léegi moom ba ba sama maas gi juddoogul Baay taalif na téere bu muy tuddee tabsiratul anam fi anna al ilma huwa al na nit ñi xam bu wér ne xam-xam a war a jiitu biñ màggee jun bay waxtaan ak moom mu ne ma ngi ko tabax ca la yàlla ne faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambika mu faalam moo jiitu xamal ne laa ilaha illallah mu ne nag xama jiitu wax ak jëf mu ne xadisu buxaari na baabul ilmi qabla al qawli wal amal daal di koy tabax ca faalam annahu laa ilaha illa allahu tax nag daan nañu jàngal di wax ne il faut jàngal jàngaleel wala nag nga bëgg kuy jàng kuy jàngale maanaam boo jàngul masala yi fexeel ba yeewu sa buum ci jàng masala yi waaw bul nekk nag ka nga xam ne jàngut jàngalewul bëggul koy jàng xadis sëñ Lamine moo tax nag ne ko kon loolu alkara lay indi péyëb jàng bi nag baax na ci lool danga gis léegi euh, waaju ma doon euh, waxtaanal bu yàggu too njaay su ma jaarutoon ci loxo baay du baax keroog waaye nag seetlu rek lii naayo ñëw si rek ci ngay xamee ne ndeke yar ay nit lu wóor la pour que ëllëg duñ nekk ay adresse yoo xam ne adresse mu zayëf la yuy joxoñ sa pays ba fekk niruwu ko te waxoon naa xale yi université ne ku fexe ba kenn yabu la sa dund bi yépp rik bu kenn fexe ñu yab la ñu ci aqida ci ibaada ci axlaaq mooy pas-pasam ci yàlla ak xàmme gam ko xàmme ak sëyroom ci asmaaw ya ak sifaatu ya ak nee na lam xam turwa mujj gi sax laaj nañ ko nee na am na lu jóge ci moom laaj ko ne ko ndax xam nga turu yàlla wu màgg wuñ nëbb wa xam nga azam ba gën a màgg mooy azam superlatif ba gën a màgg afal tafdil mu ne mu ne ba muy tontu daf ne ko dee tur yëpp dañoo màgg pour man amut ci wu gën a màgg bu jàpp rek mooy bu bu màgg ba gën a màgg ba alors kon nag euh, loolu mooy wane ne baay jàng na mais yàlla beral na ko loxo jàngale na mais beral nañu loxo fi nga koy xamee mooy dërs bu mu tëral rek boo sàgganee doo ko doo ko topp ndax dangay jàpp ne dafa yomb waaye nag bu yàggee rek nga commencé fàtte ko moo tax mun ne del jàng waaye bul sukkandikoo xam-xam sukkandikoo yàlla nga def xam-xam aussi la moom moo wax ne bi sawmi wa xajji lam asiq falwasaiqu bi fadli karimin yowma tubla alxaqaayiqu nee na maa fi dàq woor maa fi dàq julli ak jaamu yàlla yépp waaye nag sukkandikoowuma ko la ma ca sonn sonn ngër ngëneelal yàlla mu am yërmaane rek laa sukkandikoo bés ba bés ba muy wax yowma tubla saraayiru fama lahu min quwatin wala nasir ñu ñu war koo yar ñu war koo ñu war koo roy ñu war koo roy te fi ngay xamee ne ku jaarul foofu jàngaluñ la noonu royoo ci ku ko mel léeg-léeg nga tabax màbb ko la naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaasan mooy maanaam waaju yàlla suturaal mu la ñaar fukki ràkk ci guddi gi ma nga saara njugaari masalan mën na doon feneen yaa nga nekk saam masalan ma ngaa nekk feneen misaal rek la mu xëy dajeek yow mënta nëbb la dox digganteem mag yàlla dugal ko ci ixlaas xanaa foog mu fudd wala ne dafa dafa gëmeentu ndax bii nelawuma jaru ko jaru ko ndax bàyyi doon na nee na nit mën naa dem ci yàlla ba dootoo ragal njistal ndax dangay dem ba xam ne kenn du njistal ci jëfi keneen ku dul moom ma ne bisimilah rahmaani li may commencé wax ji dama bañ mu làmbambaar ba ma tënk ay point yoo xam ne dafay fàttali lu jaar xam nga tukki laa jógee waaw maa ngi jógee New York gis naa fa liggéey yu rafet yoo xam ne euh, euh, taarix dañ koy waxtaanee Cheikh Xasan liggéey na ko waaye nag ci xasaayi su baay ak ni yàlla tasaaree xam-xamam ak ak ak faydatoom gis naa dugg naa ci ab bibliothèque ci New York bu ma mës a gis gis fa baay boo bëggee ma wax la nag lan la dugg naa fa gis baay daa ci lu dul benn sikk nag xam nga nu mu demee dafa am benn lu ñuy wax suufi suufi shop suufi bookshop mooy kër mooy fu ñuy jaayee téere waaye nag ay téere suufiyanke rek fa nekk ci waxi anglais arab nekku fa téere dara nekku fa lu may téere suufiyanke rek ma nga gudd yaatu bëri ma ñëw ñi ngi yàkkamti mi ngi sedd maa ngi ànd ak ñaari nit xaw ma ñett ma fekk fa kenn nit rek xalelu americain bu weex bu góor man nuyu ko ne ko luy sa mbir mu ne ma ci lan ma ne ko ban diine nga nekk mu ne jullit laa ma ne ko waaye fii moom jullit bu nekk sufiyanke ku nekk suufi moo fi ñëw mu ne mu ndaxte man ayamee suufi suufi laa ma ne ko sotteegul de sufiyanke dafay am njiit bu koy jiit di ko won yoon wi mu ne am naa njiit ma ne ko kan la mu tudd ma njiit loo xam ne Moustapha Ahmad taalibe Baay la ca Nigéria bon ñu yàkkamti ma jënd fa ay téere yàkkamti gis ay kaset yu bëri kaset yu bëri yoo xam ne bu ci nekk la ca ne ci ja ci ay sikkar ak kii tudd tagg yonent kenn xamut fu mu jógee ma yàkkamti dal di ci jël benn buñ kaste euh, maanaam kole ko boo ko jëndut doo ko déglu ma cëf benn rek buñ bind zikrullaa yi dem ba ma demee ba kër ga ma toog ba ci ëllëg si yooyoor ma ubbi ko teg ko teg bànd ba dégg ko nodd ba mu yàgg ma dégg muy tudd yàlla ba mu yàgg moog am mbooloo ma dégg rek mu naan wa ashkuru lay laysa sirri aaxiran fa asgaru atbaa'i unii la fanaa dekk diwaanu baay bi lañ ca woy may leen kon gis naa baay parce que New York dafa sori téere ay téere sufiyank yuñ bind ci anglais nit ñu weex a koy jaay ñu nekk jullit ka fa nekk kës néew ci nit ku nit ku fa taxaw di wax américain la boo xam ne yàlla def muy taalube baay ndax taalube taalube taalube la ba may cëpp kaseet yi ëpp na ñaar téeméer ba ma tombeet ma dem fekk muy diwaanu baay baat bu neex di ko fooy abal nag Ousmane Ndiaye mii mu sotti ko moo tax mu ne démb am na ko may fàttali ne ma bàyyum xam-xam moomu ak wilaaya moomu ak wiraas moom mës na toog ci yi ak juróom-ñaari nit ca néegam sa ka ca mujjoon gaañu ne mooy Baye Omar Fati Diallo Niass nee na leen juróom-ñaari ngeen de yéen a ngi nii bariwu leen ku leen toggal sax ngeen waaru lii bari ceeb xëy na du ngeen ko jeexal mais bés a ngi ñëw foo làmb ci àddina danga fa fekk sama taalibe man loolu maa ko gis ci Amérique New York et eh, léegi nag xam-xam na ko bàyyi tasaare gis nañ ci lii tasaareel na ko boppam formé na li tubaab ya formé na ay formateur ñuy jàngal nit ñi mais yamu ca taalif na ay téere waaye bàyyi téere bu mu taalif rek jamono ko ko imposé ndax gag dafay am mu gàgganti wala weddi am mu saxal wala ñu laaj ko mu tontu bu dul loolu amul jot ndax moom dafa niroog limaam Gaza limaam Chazuli bu taxutoon nag lim bind nga xam ne dañ koo laaj ba sonn dafay mel ni Chazoli biñ ne ko ana say téere mu ne suma taalibe yi ñooy sama téere yi loolu nag gis nañ ko ci boroom xam-xam bu mu dajeel rek lu mu am jox ko ko ni mu fonkee borom xam-xam daanaka sax ci amatu naas lañ ko daan gis ci ulamaaw yi loolu nag dañ koy jëriñoo ci ay taxawaay yu bette moo tax ma ne biñ ma ne tey ba ñeseen dañ fay def table ronde buñ aju ci Baay Ñas ak dundam ak œuvre am dama ne marhaban ma lahu alaqatun bi cheikh islam wa barakati l anam ujubati zaman wa murabbi alaarifina wa madrasati alilmi wal iman wal axlaaqi alazimati wa xabibi aljamahiri daaxil alwatani sénégali wa ala imtidaadi alaalam alislami loolu laa tontu ñu ne ma dana am table ronde ma ne bu dee baay dañuy waxtaanee loolu moom maa ngi koy tatagal ndax lépp lu aju ci dundu baay bég naa ca ngir lim nekk cheikhul islam nekk barke bu yàlla may mbindeef yi nekk kéemtaanu jamono nekk ki doon yar aarifiine yi nekk ki nga xam ne école xam bu ànd ak gëm la nekk koo xam ne jikko yu màgg ya daf ko mujj doon dégg nga liñ doon junj ci ngoon nekk koo xam ne ay mbooloo ay mbooloo ay groupement ak million ñoo ko sopp te amul ci kenn ku fàtte moom jaam la buñ gënal yàlla di yàlla ñu xàmmee leen amul benn taq suuf ba pare nag ci Sénégal lañ ko bëggee ak ci mboolem aalamul islaam yi kooku kay nañ ko waxtaanee ma xool ne kooku buñ koy waxtaanee njàngam ak jàngaleem ak xam-xamam loolaal rek moom la waaye buñ fàtte ne am na lu ci yàlla cëral Sénégal mooy 1901 wala 1900 boog ba jantam fenkee fii seetlu naa ne ba 1922 ci ron baayam la nekk xaaj Abdoulaye Niass siggi làgga ci xam-xam ak jub ak fonk sunna bàyyi nee na su ma bàyyi lu xool rek bu ko xawee werante tuuti rek daf koy bàyyi ngir dafa sàmm sàmm goo xam ne yegg na fa sàmm yem nee na boo ko gisee mu taxaw rek xamal ne dafa sàmm xam na sax may dafa sàmm mu ne bu ma waaxoo rek xamal ne daf maa wóor ne loola dara nekku ca moo tax su ma bàyyi uh, sàmm moo ko tënk te terewul muy borom xam-xam man xam-xam ma tinki te terewul may ku sàmm loolu lay firi mu ne 1930 1922 ak 1901 xam nga ñaar fukki at la ñaar fukki at la ñaar at yooyu bàyyi ngi ci buntu néeg baayam ci biir néeg baayam ci kaggu baayam ci liggéeyu baayam ci guddi baayam ci bëccëgu baayam ah maam alaaji nag su fekkoon ne Sénégal ak Saalum dañu amoon taarixu bind ak campagne ak ak xawa a njabur kon te àddina yépp nga koy waxtaanee ndax looy wut ci diine rek mi ngi ci moom xam nga lu tax euh, al baladu tayibu yaxruju nabatu bi izni rabbihi waaw c'est-à-dire suuf su baax nawet bu tooy jiw bu baax nga ji ko sax rek jëm kaw te te Sidi Mouhamad baayam baay moo ñu nettali ne maam alaaji wax na ko ne baayam nee na musul fàttaliku jamono joo xam ne mokkalu ci alquran maanaam ba muy mokkal daal daanaka ba daanaka rek moog alxuraan ji ñoo xaw a maase loolu nag buñ ko jëfandikoo fañ ko war a jaar ci sunna foofee lu fa juddoo rek lu fa màggee rek lu fa bànqaasoo rek dafay dal di niru alxuraan te alxuraan xam ngeen ko sëñ bi waxoon na ne ci ci ngoon sayyidatuna Aïcha bañ ko laajee luy jikko yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa ne alxuraan ay jikkoom am na riwaaye bu ci yokk sax ne su meree mu mer su gërëmee mu gërëm kon nag néegu alxuraan moo meññ amaalixatu yooyu maam alaaj abdoulaye nag moom dañu wax ne ba mu demee màkka sëriñ jaamal ma dendoon ak moom dafa xir ci lu baax dafa ne kii day bu ma ajeeg moom ci barab yu sell yi danaa fexe ba dégg li muy ñaan ndax ñaan yombut ñu bëri dañ foog ne ñaan yomb na yombut ndax léeg-léeg nga ñaan ñaan mu yàq la nga ñaan yëpp te loolu war naa xam nit war na koo xam waaw yàlla yonent bi nee na boo ne ñaan naa ba tàyyi yàlla nangulu ma rek yàq nga yàq na commencé waatal mu ne rek mu dëgg dégg maam alaaji fu mu dem rek mu nga naan rab lii rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiu duaa maa ngi lay ñaan ngir lu baax doom yu baax doom yu tekki dara doom yu am njëriñ tey yàlla may na ko waaye nag boo ca tegee 22 ba 36 37 taxagul bàyyi génn Sénégal kon bàyyi am na fanweeri at ak juróom-ñaar jàllul frontière u kii kay yàlla ko may nit ñaa ngay jàng ca xarawiin di am xam-xam ñii ca Azhar ñii ca Najaf ñii ca Makka ñii ca Medina ñii wër réew mi di am xam-xam waaye nag ba ko yàlla bëggee sédd loo xam ne kenn du ci am benn minnatu mu toog ko ci ron baayam jàng ci ron baayam moo tax ba ko benn góor gu ne dafa xër ci sunna nuy see Makka di wax xam-xam bàyyi di tontu xam-xam foog ñu nettiwaat leen ko góor ga dafa ñëw ndeysaan amee yatam ba egsi ne ko Cheikh Ibrahim mu ne mu ne ko al muminu miraatu axi yi jullit jullit mooy seetoom bàyyi ne ko ajal loo ma bëgg wax mu ne dama dama la bëggoon laaye biir bàyyi ne ko marhaban loo ma bëgg laaye biir mu ne ko comme yow borom xam-xam nga te ku jàng sa téere yi xam ne borom xam-xam nga te yow yaa fare Afrique nit ñi jàpp ay wirdoo ki sëriñ caaxaan yooyu yow yaa ñu war a dimbale ñun rabita jeexal ko ci réew moomu mu ne ko yu caaxaan yi lan mu ne ko ay tijaani yaa ki xaadir yaa yu mel noonu déglul de xam-xam ngeen wax bàyyi na tekk bu yàgg mu ne ko pare nga mu ne waaw mu ne ko ndax xam nga tijaani yee moom waaye ñu ne ko man dégg naa lu bari ñu ko ciy wax mu ne ko man xam naa ko ndax xam nga Cheikh Ahmad Tidiane yi mu ne ko dinaa dégg ñuy wax ci moom mu ne ko man xam naa ko waaye nag dinaa la laaj man ndax ki ki ne xamut mooy xamle wala ki xam mooy xamle mu ne ko nag ku xamay xamle mu ne kon nag déglu ma ma waxal la waa ji ne teg mu ne ko yaa ne ma am nga xam-xam man waxuma ko waaye comme wax na ma ko nag ma yokkal la ci ne su ma bàyyi ma jàngal su ma bàyyi bàyyi ma ko jàngal moo ma jàngal xalaal ak xaraam jàngal ma bidda ak sunna ma xam diine gannaaw gi gannaaw gi mu won ma wérdu tijaan yi maa ngi lay waatal ci yàlla yow mii di ma laaya biir ne li ma fonk-fonk su ma bàyyi mii su ma sëriñ ba ma gisee wérdo wi su ma ko ba ma ko méngaleeg lim ma jàngal suñu wute woon rek du ma jël wérdo wi waaye nag damaa xool gis muy ñetti sikkat dong dong dong dong yàlla yàlla nag ma baal yàlla yàlla na nga julli ci yonent bi yow yàlla laa ilaha illa allahu gisuma ci lu ñuy war a méngaleeg alquran naan uuti nañ wala uuti ndax loolu mooy jëmmi alquran dal di koy wax aaya dal di koy wax xadiis ya ne ko ndax jullit dina laaye mbokkam jullitam pour mu bàyyi ba istigfaar waa ji ne ko xaaj ku wax loolu mu ne ko ah sa wax a ko niru jullit yonent nag mu ne ko mukk ci àddina mu ne ko laa ilaaha mu ne ko loolu xel daju ko bàyyi na ko loolu kat mooy tariixa lu ko génn nag ñaar yëpp rek la mën a doon fadlun aw fudulun fadlun mooy ngëneelu yàlla jagleel nit nga sikkar junne mbaa fukki junne kenn sikkar ñetti baat yàlla jox ko ca lu ko neex ko ko zalika fadlullahi yuti man yashaa fadlu la fudul nag mooy nit kuy mbeb mbeb ci lu mu xamut bàyyi leen lii du tarixa lii ngëneelu yàlla la waaye nag cheikh mi nga ne xamoo ko bàyyil ma tënkal la ko shérif la ci askan wu wér xam nañ ndeyam ak baayam ak nijaayam ak ay maamam topp nañ ko ba ca xasan ba ca muhammad naf zakiye ba ca ba ca ba ca ali ba ca yonent ba mu ne ko ñaareel ba ñu ko jàngal xam nañ leen am na juróom-ñaari at yi nit di dal jàng ca la mokkal alxuraan moom Cheikh Ahmad Tidiane baay wax na bi mu amee ñaar fukki at ñaar fukki at ak benn nee nañ fi mu nekk kenn rawatu ko fi wala moo fi raw te xolam seddagut ndax nee na yàlla la bëgg waxuñ ne yàlla dafa tàggu xam-xam waxuñ ne xam-xam dafa tàggoog yàlla waaye nag xol bu am xam-xam xam yàlla xàmme ko di sayru ci asmaaw yeeg sifaatu yi xam lafa kooku niroowul la kooku jàng kooku koo xamul bàyyi mam Cheikh Chamatiani di dem ba yàlla may ko lim ko may mu ne ko nag waaye li ngay ragal muy caaxaan mënta am ci tarixam bi ndax moom moo ñu ko aaye moo bés nee na nit nee na ko sang bi muy Cheikh Chamatiani ndax nit mën naa kàccoor bés ba wax loo waxut mu askan la ko wala mu wax la loo defut mu ni cheikh ne ko waaw waaw mais nag pexe am na ida sami'tum anni shay'an fazinuhu bi misani shar'i fa ma waafaqa fa xuduhu wa ma xaalafa fatruku luñ ne maa ko wax man Cheikh Ahmad Tidiane rek soo mënee peese peese ko ci sharia buñ àndee maa ko wax buñ àndut bàyyi ko fa d'ailleurs sax d'ailleurs sax amoon na muqaddamu bàyyi bu mag yàlla na ko yàlla yërëm boo xam ne nelaw na Seydi Mouhamadou Misri wax na ci benn téeréem ne bàyyil xel nag lim ne fatruku nee na bu dëppoowul ak sharia ci ni ko gisee yow bu mu tax nga weddi bàyyi ko fa ba ku ko mun a dégg ñëw ndax mu ne peese peese dafa laaj dafa laaj la ngay peese nga am poids bu tolloog moom waaye cheikh mën naa wax wax wax jee peese 10 kilos yow nga am ab liibar nga teg ko yëngatuwul nga ne wax ji dëppoote alxuraan fekk ci yow la nekkul ci moom ndeysaan nag bàyyi di wax ak waaja wax ji dafa gudd mais bañ fay laata jógee bàyyi waaja daf na ko xasanun xasan méttee nga taalifal ñu téere boo xam ne tijaaniyatu gi dëppoog xam-xam da ko cay wax mu ne ko boo bëggee waaye yàgg naa taalif de am na ñaari at buñ dajeeg bàyyi ci màkka mu naan ko ay na kitaab bi fa benn bés nag bàyyi ne ko haadal kitaabu sabaqa taalifuhu walan aud waaja dem bàyyi dem loolu nag moom laay xaw a raamaatu mës naa fee nettali xaw ma ci daaru bi téyeen damay am ay daje ci tukki mii gis naa nit koo xam ne dafa njàng ma ne xar yàlla nag natt ko xañ ko loolu ñuy wax ñun leer ak xol mooy nuuru tasdiq te bàyyi dafa siiw ba ñun ñi nga xam ne moo yar ñu bëgg cee xaw siiwaale léeg-léeg nga gis na koo xam ne dafa lay ëkku bëgg laa ngàdd pour toroxal la ci kanam nit ñoo xam ne gëmuñ li nga li nga nekk gëmuñ li bàyyi nekkoon mu mel ni ñoom dañoo am ndam mel ni ñun dañoo jëm suuf te yàlla nanguwul déglu nag déglu ma ñun ñi nga xam ne maacharal mu'taqidin maa ngi ndokkeel suñ bopp ñun ñi nangu gëm ko am ci pas-pas macharal muntaqidiin maa ngi leen di yërëm mooy ñiy weddeek lu ñu ut luñ taqal suuf te nag yu baay ngeen baal ma waxin bi ndax waxinu euh, yenn géew yi la péyu baay wundu du fa naa naanee ñeex mukk da ànd ci lu baax li wala nga bàyyi ko fa comme li Cheikh wax wala nag boo dajee ku bàyyi yar ñu set ba xam la fay indi nit ñi ku ko fay wax léegi dama dajeeg waa ji du ma leen ko nëbb ku am daraja la mu ne ma waaw yéen seen sëriñ bi dafa siiw ma ne ko siiw na lool moom wax na ko sax wal abdu daa buli bi shuhratin xashi min makri rabbihi li daaka yaxtashi xadamani al axraaru wal abidu xadamani kada al muluku siidu wa xadama nisaa wal wildaan wa xadama sucluku wa sultaanu mu ne man daal man bàyyi ma ne ko moom moo ne yàllaa ko nattoo siiw ba dafa mujj sax tiit gor yaa ngi may liggéeyal jaam yaa ngi may liggéeyal buur yaa ngi may liggéeyal baadolo yaa ngi may liggéeyal te kat law shitu amma fayduhu lbasita wa adraku asraruhu lmuhita te kat lañ may liggéeyalee mooy man yàllaa ma may su ma neexoon li ñenn